d'amitié et de travail en Arabie Saoudite. Le président Macky Sall a effectué la Umrah ou Petit Hajj à la Mecque. Le chef de l'État a prié à cette occasion pour un Sénégal prospère dans la paix et la solidarité, renseigne la présidence de la République. Suite à la modification du code électoral, 17 députés ont saisi en annulation le Conseil constitutionnel en ce qui concerne la réduction de la liste nationale proportionnelle. La saisine en annulation est portée par la signature de dix 17 députés issus des groupes de la majorité, de l'opposition et des non-inscrits. Le ministère de l'Éducation nationale a fixé de nouvelles dates pour le démarrage des épreuves des Pour le certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en sixième, au 23 juin 2022. Le baccalauréat technique est prévu à partir du 27 juin 2022. En ce qui concerne le baccalauréat général, il est programmé à partir du 14 juillet 2022 pour le brevet de fin d'études moyennes. Il se tiendra à partir du 21 juillet 2022. En Afrique, l'ex-président de la Guinée, Alpha Condé, est à présent libre. Il peut vaquer à ses occupations et recevoir chez lui. Le comité national du Rassemblement pour le développement et son président colonel, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition et chef suprême des armées, informe l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, est libre tout en continuant de bénéficier d'une protection adéquate. Il pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique, politique, des amis ou proches, indique la junte dans un communiqué. En Somalie, 8 personnes ont été tuées vendredi à Mogadiscio dans un attentat suicide visant un restaurant à bord de plage qui accueillait notamment le chef de la police somalienne et des élus. Les responsables n'ont pas été blessés dans l'explosion qui a provoqué un incendie à l'intérieur du bâtiment et suscité la panique parmi les clients. Plusieurs personnes ont été également blessées, mais aucun élu n'a été touché. par les éclats d'obus qui ont atterri dans l'enceinte fortifiée de l'aéroport près du Parlement dans la capitale Mogadiscio. Sur l'international, la France va livrer aux Ukrainiens des armes lourdes et pas n'importe lesquelles, des canons Caesar et des milices antichars Milan. C'est ce qu'a affirmé le président français Emmanuel Macron dans un entretien à Ouest France paru ce vendredi. Les autorités israéliennes ont annoncé la fermeture à partir de dimanche du pont de passage d'Erez aux travailleurs et commerçants palestiniens de la bande de Gaza après des tirs de roquettes vers Israël, renseigne RFI. Le passage d'Erez et le seul passage de personnes entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Bordé par l'Égypte, la mer Méditerranée et Israël, ce territoire pauvre est soumis à un blocus israélien depuis plus de 15 ans. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.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 imam Mouhamad Sakho mën ci umra ak pèlerinage ndax liggéeyam bu set te sell dina ànd ak yéen ci umra ci biir koor gi du 10 avril au 21 avril 2022 te lépp lu jëm ci seen visa seen hébergement ci ay hôtel 5 étoiles ci biir Makka ak Médine ak seen transport ak ay guddi yu xam te mën a jàngale aj ak umra dinañ leen gunge ci lu jàppandaal ngeen am juróomi fan ca Médine am juróomi fan ca Makkatal Mukaram ci ay paquets yu bari wuute à partir de 3999 dollars seen xëdd ak seen ndogu ca Makka ak Médine c'est gratuit ki leen defal bile xéewal mooy Al Madina International Travel ànd ak imam Mouhamad Sakho te kat umra ci weeru koor day mel ni nga ànd ak yonent bi di aj Makka gaaw leen gaaw téléphoné 34 7 5 nine six two oh three six adresse mail almadina international travel arobase gmail point com ou bien le www point almadina trabal point net dem Makka ci loxo yu wóor ak teñaan ñaan yàlla nangu su ngeen ko bëggee contacte leen agence almadina international travel nekk fii ci Amérique ñoo mën ci umra ak pèlerinage لك والملك لا شريك